si et empêché mais lépp lu ñuy def boobu ba tey ñoo ngi en contact ak ñoom laa bëggoon wax ci introduction bi président Mamadou Lamine Diallo wax na ko proclamé nañu résultat yu provisoire yu élection législative yi dans la précipitation ndaxte ku nekk xam na ni bi ñu koy proclamé le jeudi délai yi dafa doon continuer ba le vendredi à minuit mais li ñu demande woon ñu bañal ñu ko wax nañ leen ko jalul ñu ci dellu si xëy na li am rek ñu war leen ko won mooy ñu bare ci plateau yi ñoo ngi wër naan yeewi ak wàllu bi ñu nekkee ci biir dañu wax rek mais amul dara lu ñu def yàlla def na lépp lu ñuy def rek dañ koy documenté parce que nous continuerons à rester des scientifiques rigoureux moo tax lu ñuy def rek dañ koy documenté moo tax ma indaale li nga xam ni ca bés ba avant proclamation résultat par la commission nationale de recensement des votes déposé nañ que ci bureau assistante ou secrétaire général mooy irrégularité yi nga xam ni jotoon nañ ko gis ak lañ ca namoon ba ñu defal ñu décharge décharge boobu ngeen gis ni signature bi gis ni cachet boo dee xool ci document bi PV yi nga xam ni moom la ñu jotoon gis irrégularité yi ñoo ci nekk mais tamit li ñu demandé woon commission national bi mu def ko comme traitement wu PV boobu ak département yi nga xam ni ñoom lañu gisee yooyu lan lañ ci xalaat donc lii mi ngi ci PV bi dem conseil constitutionnel parce que document wu commission nationale de recensement des votes la et gis ngeen cachet bi gis ngeen signature bi mooy également la même chose ci docu ci deuxième document bi moo koy accompagner mooy lettre bi accompagner irrégularité yi ñu gis moo tax buy nit ñi di wër ci plateau yi di wax ñu dan naan tekk te xam ni waxtu dina ñëw tontu ñëw mais tontu ak preuve parce que ku nekk xam nañu ni c'est une intercoalition très sérieuse donc document yooyu dina dem conseil constitutionnel document yi accompagné PV bu commission nationale de recensement des votes mais ci la ca des moom le président Mamadou Lamine wax léegi mooy intercoalition bi dafa décider ginnaaw bi mu waxtaanee ni du def recours au niveau du conseil constitutionnel gis ngeen ni loolu tey daanaka presse bi interrogé wu nañ ci ni recours yi délai yi day jeex te tey gisuñu document gisuñu présence bu mandataire intercoalition yi pour def recours ñu xamal opinion nationale ak internationale ni defuñu recours au niveau du conseil constitutionnel ndaxte ñi nga xam ni ci lu yàggul situation bi sénégalais di traversé Sénégal di traversé ñoom ñooy lu njiit ñoom ñooy njàkk ñoom ñoo jël liste titulaire éliminé bàyyi ay liste suppléant dem sur un même problème ñu suivre une décision si titulaire bu Benno Bokk Yaakaar bàyyi seen liste suppléant alors que gaa Benno Bokk Yaakaar daboon na Dakar liste Yewwi te bi mu dabee Dakar liste Yewwi ñaar yëpp le ministre de l'intérieur rejeté loo woon kuppatiwul woon conseil constitutionnel suivre loolu ci bi ñu naaw bi nga xamee ni moom la ministre de l'intérieur def kon dem ni ñooñu dañu amatul confiance ci ñoom te peuple bi amatul confiance ci ñoom kon ku peuple bi amatul confiance ci yow nit ñi amatuñu confiance ci yow classe politique bi amatul confiance ci yow kon amul luñ fay déposer di ay recours di perdre suñu temps parce que ñaari député ba ñett yi nu président Macky Sall ci bi mu gonflé yenn chiffres yi gonflé yenn département yi xanaa lekk cere bu neex a neex neex rek mooy yóbbee ñangeen yeeg mengeen yi ñuy gént ni benn boog benn député wala ñaar yooyu wala ñett yooyu conseil constitutionnel dinañu ko delloo leer na leen du ci wàññi lu ci yokku du ko ci wàññi ci député président Macky Sall donc xam nga loolu nekk fii war jublu ci li askan wi soxla nga naan yaa nga fay topp dem di fa taxaw yéen ñi journalistes yi nga nga fa nekk guddi ak bëccëg argument nan leen épargne loolu parce que yéen it am nga loo leen di def Sénégalais yi am na lu ñuy def ñun ñii am na lu leneen li nga xam ne aussi war nañ ko mën a def te conseil constitutionnel bii bu ñu yàlla mayee te ca la ñu nekk ñu contrôler assemblée nationale xam nga président de l' assemblée day proposé ci change président de l' assemblée day proposé sur les sept conseil bu ñu war réformer la pour ci li war a jëm parce que kenn mënu ko bàyyi mu continuer noonu nga xam ni daanaka amul benn acteur politique bi nga xam ni tey jii nii am na confiance ci loolu dafay génn ak la ñuy dogale donc loolu mooy li nga xam ni moom la ñu bëgg wax di wax deuxième point bii le président Mamadou Lamine dellu si léegi muy la HCCT gis nga wolof Njaay dafa naan góor ca wax ja gor ca wax ja te ku xam intercoalition bi xam ni lu nu wax rek dañ koy jëfe mënuñu tey jii nii yi nekk ci guuta inondation bi mel ne tulle ak male ci biir réew mi ku nekk nekk ci metti di nga xam ni kenn xamul nu mu tëri ñu ciy profité di leen masawu coono ci metti yooyu ku nekk gis dund gi ni mu chéré ni Sénégal yi di souffrir guddi ak bëccëg pour mën a assurer le minimum ñu naan ñoo ngi dugg ci institution bi nga xam ni leer nañu ni amul benn njariñ ci askan bi fii ku fi mën a wax lan mooy liggéeyu HCCT ku fi mën a wax lan mën a retenir ci seen bilan ci biir Sénégal amul à part bi ñuy jot 4 yi ñu leen di jox jëlee ko ci budget wu état muy ay milliards yu bare yi nga xam ni mën nañ intercoalition bi nekkul ci caaxaan boobu wax na leen lu leer ñu leen koy répété waat population sénégalaise bu ñu yóbbee intercoalition bi ci bopp réew mi li war ci réforme dañ koy engagé te sénégalais yi daanu xam ni seen yitte mooy suñu yitte fond bi dina fi jeex kaf bi dina fi jeex yàq bi dina jeex ci nguur gi ak ci jumtuwaayu état bi pasar pasare bi dina jeex luubal bi dina jeex lu jub rek moo fi am te lu ñu yëkkati rek day doon njariñu sénégalais yi moo tax ginnaaw ñun ñëpp d'accord nañu ci lii baaxul sénégalais yi d'accord ni baaxul intercoalition bi à l'unanimité je répète intercoalition bi à que du participer ci HCCT intercoalition bi à l'unanimité retenir retenir retenir que bu ñu yàlla mayee ñu installer assemblée nationale bi ñu contrôler assemblée nationale bi daanu dugal proposition de loi pour la suppression pour supprimer HCCT parce que amul njariñ milliards dafay nekk dafa jóge mën na jaar mën na jariñ askan wi ca leneen kon loolu mooy li nga xam ni moom laa buggoon wax le président Mamadou Lamine mi may demandé ma résumer que rapidement en français deux secondes sur le conseil constitutionnel parlant des résultats provisoires Vous aviez tous suivi les interventions qu'on a faites à la suite de la proclamation des résultats provisoires par, le, par la Commission nationale de recensement des votes. Ce jour-là, ils se sont précipités, les membres de la Commission, à proclamer les résultats le jeudi alors que les délais couraient jusqu'au vendredi à minuit.

et même au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, ils se sont limités à s'offusquer de ce qui s'est passé, mais il n'y a aucun document qui accompagne le PV. Mais comme nous sommes une intercoalition très sérieuse, on s'est abstenu de participer à ce débat, sachant qu'un jour viendra et devant la presse, devant l'opinion nationale et internationale, on aura, comme on a fait tout à l'heure, la possibilité de vous présenter toutes les preuves qui démontrent les accusations faites par certains membres de la coalition sur les plateaux. Vous avez vu ici le document qui a été déposé au niveau du secrétariat de la Cour d'appel, sur lequel nous revenons sur les irrégularités notées lors de l'échantillonnage en ouvrant certaines caisses et qui nous avait amené à formuler cette demande, d'ouverture de toutes les caisses pour voir ce qui s'est passé dans ces départements que nous avons cités. Et vous avez également sur l'autre document, et vous pouvez tout à l'heure les consulter avec le cachet et la signature. Vous avez également sur ce document-là tout ce qu'on a utilisé comme argumentaire pour pousser le président de la Commission nationale à nous laisser profiter de cette loi qui donne la possibilité aux mandataires de disposer des documents, ce qu'il a refusé. Donc ce, ces documents le PV de la Commission nationale de recensement des votes, ce PV qui doit aller au niveau du Conseil constitutionnel. Mais, après réflexion, l'intercoalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela, quand ce même Conseil, pour la première fois au Sénégal, a laissé passer pour la coalition Yehui sa liste des suppléants et a éliminé sa liste des titulaires et pour Benno Bokk Yakaar sa liste des titulaires en éliminant sa liste des suppléants alors qu'il suivait une décision du ministre de l'Intérieur qui quelques jours avant pour le même problème concernant Benno Bokk Yakaar et c'était le cas pour Yewwi Askan Wi ne s'était pas en tout cas livré à cet exercice de coupure des listes mais avait tout simplement rejeté toute la liste de Askan Wi pour dire que la forfaiture est tellement grave qu'à notre niveau, on pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas à ce niveau que les deux, voire trois députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte justement du bourrage d'une qui a existé dans certaines zones c'est pas au niveau de ce conseil constitutionnel que ces trois députés vont nous être restitués. Et je pense que tout le monde le sait. Et pour cette raison, nous avons décidé de n'introduire aucun recours au niveau du Conseil constitutionnel. Pour le HCCT, l'intercoalition Wallou Yewi est une intercoalition très sérieuse, composée de personnalités très soucieuse des préoccupations des Sénégalais. On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur à l'intérieur du pays, ici à Dakar, assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes, souffrances de tout ordre, et vouloir aujourd'hui remplir une institution qui ne sert absolument à rien. Qui peut dire dans cette salle ce que c'est cette institution? Qui peut dire dans cette salle ces membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ce qu'ils font et qui croisent les préoccupations de nos compatriotes? Personne. Et vraiment, nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance toute autre. Et pour cette raison, ou pour ces raisons, nous avons décidé à l'unanimité de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales et une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Parce que c'est une institution budgétivore Et nous pensons que ce qui est mobilisé là-bas peut être réorienté dans d'autres rubriques beaucoup plus intéressantes et qui croiseraient sans aucun doute les préoccupations actuelles des Sénégalais. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre aimable attention.